wan nañu man mi nga xam ne maa section bu gën a mag ci Dakar waaw may laaj section bu gën a mag ci Dakar ñu ne say délégué duñu dugg parce que dañu jël yeneen délégué bindal ñu muy benn ñu jël fan moom it di section bu mag ñu jël seen délégué ñenn ñu génne leen le secrétaire général de Albert Royer même dañ ko génnee bokkul sax ci délégué yi loolu fan la mën a ne l'hôpital de Pikine Dakar lan Dakar sans Pikine sans Dantec sans Principal sans Keur c'est pas Dakar vraiment je suis désolé Dakar sans Dantec Dakar sans Principal Dakar sans fan, Dakar sans Albert Royer Dakar sans Pikine non Dakar sans Kermassar mais c'est quel Dakar je suis désolé. Et également, quand on parle du sussas, le sussas c'est Dakar et Thiès. Ah le sussas, je suis désolé. C'est Dakar, non. Nous waxtaan dañuy waxtaan dëgg ci la moom nous ñun ñoo fi ëpp ñun Dakar sunu ginnaaw Thiès moo ci topp ah donc voilà. Nous, mun a defee ak Matam Saint-Louis noo mun a defe nga ne yaa raw gàdd gi alors que amoo Dakar amoo Saint-Louis amoo amoo amoo amoo Dakar amoo amoo Matam amoo Matam waa léegi Kaolack new fa waa léegi ngeen ne loolu loolu ñun xoolal ñooy sut sas ñooy sut sas tey ñooy sis ak ëllëg demuñu bougé wuñu ñun ñooy sut sas te dañ ciy dem ba jeex on va Sud Sas Sud Sas Sud Sas Sud Sas donc kon loolu ñun ñu ngi topp si suñu ginnaaw incha allah secrétaire général Pape Mor Ndiaye de Thiès li ci kanam nag raw yi lu bët nañ dem dineen doxal ba mu neex incha allah di leen ne si saas piir lañu te kenn mënuñu tere nekk si saas waaw dañu ne booy ñëw pour nekk candidat waaw bokal fen bokal fenn mais laaj leen ko moom ban section la nekk. ñaata ñoo nekkoon ci salle bi te amuñu nekkuñu fenn. retraité la ñun yéen a ngi fa woon. ñenn ñi ngi fa woon. yéen waa Thiès yéen a fa woon. amoon na pepp pepp Dakar yu fa nekkoon. donc mais nañ Nous la là. Nous sommes là. Nous suivre Taxi taxi là. Taxi pour être membre du CESAS il faut que nga structure mais ñu lay sommes là. carte de membre Nous sommes là. Nous sommes là. structure sommes là. nous nous devons ko secrétaire général honoraire et que ñu jël ko ndax nous noon nañu kenn nit nit nag booy wax rek waxal dëgg kenn compétence background mais il a il faut savoir s'arrêter c'est ça le problème notre seul souci c'est que mon po jox flambeau bi xale yi c'était ça le ah problème ah Ouais, loolu mooy problème c'est le seul problème waaw non changement non du pas changement seulement mooy nañu suivre texte yi réforme na nekk ci texte yi ñu teg lu leer ñu jaar ci kaw texte mais ce qu'on a vu là c'est tout sauf la justice c'est tout non c'est ça c'est ça la boo waaw ku bokkul nooy demee ku bokkul ku bokkul nooy demee l'UNSAS n'a pas été neutre il y a eu des problèmes j'ai posé le débat pour dire que mes délégués sont d'or. les délégués de Pikine ont été remplacés qu'est-ce qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils me servent pour me dire et de Karmassar, qu'est-ce qu'ils me servent oui les textes n'ont pas prévu hein euh, de régler ce problème-là. Si les gens ont laissé les... Ils ont donné une autre liste, c'est pas ça. Et on a appelé notre secrétaire général de l'Union régionale de Dakar. Malheureusement, malheureusement, malheureusement, non, non, non, c'est inacceptable de venir devant les gens et de dire tout sauf la vérité. De dire tout sauf la vérité, c'est lâche. C'est lâche. Et puis oser regarder les gens, les yeux dans les yeux, dans les yeux, pour dire autre chose que la vérité. Oh là là, quelle, quelle, éthique Et avec lui, ils pensent qu'ils vont amener l'Union régionale de Dakar en avant. Non, ce n'est pas vrai. On verra bien. L'Union régionale de Dakar sans Dantec, l'Union régionale de Dakar sans Fan, l'union régionale de Dakar sans Albert Royer, l'union régionale de Dakar sans Principal, l'union régionale de Dakar sans Pikine. L'union régionale, non, je parle de Dakar. L'union régionale de Dakar sans Kermassar. Mais c'est quelle union régionale et le succès je l'ai bien dit tout à l'heure, le SUSAS sans caisse. Sans les régions. Sans les régions. Hein? C'est ça le problème.